asalaamaaleykum maa ngi tudd Pathé Boye ñu gën ma xam ci Big Pato euh, ma nekk euh, policier nekk mbër aussi acteur social te bu ngeen ma gisee ma taxaw ak euh, waa Nouveau yi ñu xam ni samay partenaire depuis daaw parce que ñu ngi ma gis ma nekk kuy tàggat yaram di def social ci image boobu lañ gis man aussi ñu ñëw ñu waxtaan parce que ñoom dañoo ñëw Afrique wala Sénégal pour xool nu ñu jàppale réew mi nu ñu jàppalee ndaw ñi pour créer emploi parce que ñëpp ñu ngi dégg problème emploi Sénégal ñëpp xam nañ am nañ ko donc bu ñu gisee ay ñi am nañ doole ay bailleurs ñu ko wax ci nasaraan ñu war a ñëw pour jàppale ndaw ñu am ci lu ñu jàpp comme ni ko njiite réew mi di woowe aussi ñun tamit en tant que jeune sénégalais lu ñu mooy jàppale leen dalal seen xel aussi en tant que acteur de la sécurité wan leen Sénégal kat dëkk la boo xam ne ku fa nekk sa xel war na dal jàmm am na fi parce que fu jàmm amul kenn fa dem waaw boo gisee aussi ñoom ñu ñëwaat euh, parce que lii du Sénégal rek la am dëkk mel ni Ghana am na fa Nigéria am na fa parce a am doole comme a am kàttan la gars yi daan yóbbu fële ñoom nag tey

te mën nañ dem ba ay jumelage judd ci ay dëkk ak dëkk te loolu day amal réew mi njëriñ boo xoolee nii def ku mel ni restaurant bi ñu am fële ngor rond-point Dream ñoom ñoo ko créé dèjà foofu ñu ngi fay jël ay ndaw ñu fay xëy di liggéey ta am na yeneen yu ñuy tabax am na ay hôpital yu war a tabax waaye aussi ñu ngi koy prévoir dèjà ñoom du fii rek même Gambie sax am na 300 kër yu ñu fa tabax mooy li ma wax rek dafa nekk li nga xam ne ñoom sama objectif man en tant que sénégalais wala ku xam ne dafa bëgg a jàppale réew mooy feex fexe ba dalal seen xel ñoom ñu mën a ñëw fii seen xel daal ñu gis fi kaaraange mën a liggéey ànd ak ñun waaw loolu aussi ñoom waxtaan nañ ci ak man su yàgg parce que man joué naa fi benn film boo am na un million de vues ak yeneen film dem naa fi lycée Kennedy di doon jàppale jigéen léegi nag carton rouge boobu ngay dégg dafa am organisation bu wax ARND parce que ñoom seen objectif mooy fexe ba euh, loraange jigéen yi di am ci biir kër ak ñu góor yi du góor jigéen kese a jigéen nañu wax bi dañ koy man jël nañu déjà comme ambassadeur boo xam ne war naa bokk ci campagne bi pour sensibiliser ñu moytu fitna yi am ci biir kër yi entre góor ak jigéen parce que sëy te li am yëpp kenn mënu leen tàllal loxo yéen bi parce que damay wax ni liggéey booy liggéey ci àdduna te amul communication zéro la yéen aussi amuñu fay dañ leen sant leen gërëm wax ne liggéey boobu aussi ñu ngi leen ciy woo ngeen jàpp ci parce que yéen société bu baaxee si yéen la <laughs> leneen la am aussi <laughs> yéen si mën a jàpp. Yes, so we talked about the youth summit, but tonight we have the all-white party at Jet Cafe, and we want the, Senegalese business community to come to this event and mingle and network with the business delegates that are here. Euh, comme ni ñuy wax euh, organisation sama sama voilà ki camp camp camp de yu ñuy organiser ak yooyu yëpp ak jeunes yi ñoom tamit dañuy def aussi tey benn euh, soirée euh, kii la euh, nu tudd tout blanc la ñuy sol. tout blanc tout blanc la ñuy sol tey jet café lañ koy defee tey ci guddi ñu ngi invité ñëpp ñu ñëw fekkee ko comme ça ñu xam li xew dinañ mën a jaxasoo ak ñoom xam li xew tey ci guddi. kon mhm. Huh? Oh, Jet Cafe. Jet Cafe. Right. And then um, Friday night, no, Friday we have the um, youth concert. That is, um, we're going to have John Mon, Sam Mapuzzi, um, Admo, DJ Bibbs, um, DJ Dollar. We'll be doing some PNG. dance competitions. Um, oh, PNG. Yeah. Yes. Um, uh, students get a discount, um, half off at the door. Mm -hmm. So we mm-hmm. really want to promote um, the youth getting out and, and, celebrating what we've done here this week Monument. at the Renaissance Monument. Wow. vendredi soir dañuy am concert ba nga xamante ne ñi mu cité léegi nii yëpp ay DJ leen xam ngeen leen ñoom dañ fay nekk dañuy invité ñëpp ñu ñëw étudiants yi. moitié prix la ñuy duggee donc na ñëpp ñëw ñu dund fa lu neex waaw. merci Samba Peuzzi Diama